te morom ah. mu nekk combat boo xam ne gis nga leen ñoom ñaar instant bi dañoo am envie pour songante dalal jël ma ko sobal ñëw ak moom waaw waaw mënul ñaar nee naa la combat bi mën na ñoo xam ne Reenu Guy combat bi moo koy dugal ci laam parce que combat bi surtout moom dafa nekk combat bu am importance open press am ba waa Géejawaay ñëpp a génn ànd moom mbëru Géejawaay yi ñëpp 100 pour cent bi ñëpp génn ànd ak moom ça veut dire que na ci espoir yoo xam te ne macha allah bis la bi nga xamante ni ñoom ñaar kenn waru ko ñàkk parce que mu juumul ku nekk si ñoom ñaar bi mooy sa grand combat premier grand combat bi mooy waaye si ñoom ñaar bu mu juumul moom Fatma Dia ku si daan di nga commencé mos millions yi. non ñoom mos nañ sax mais ku si di nga commencé. dëgg la dàqantiku dàqantiku waaw. ak lu mën a ñaari mbër yu décidé laa gis xool leen xool ñaari mbër yu décidé nga gis ah, ñaari mbër yu décidé laa gis waxal li la saf bàyyi ma jël la sa micro nga wax li la saf ndeysaan sama doom ji mënul ñàkk ndeysaan Habib Habib jëlal ñaari mbër yi jàkkaarlu bi mu ngi noonu daal lu combat espoir ñu ngi géew bi daal lu ñaari xale yi kenn ki caaroo la bàyyeekoo ko ñu rek rek kenn ki géej waay la bàyyeekoo bañu Balla ñoom ñaar di espoir lamb ñoom ñaar lamb yaakaar waaye ñoom ñaar ku ci daan tey bis bi dana fu mu yóbbu si yoonu waaye tey ndeysaan Alpha bu reenu bii gi foofu fay tey ndeysaan Alpha doomu Guédiawaye la maa ngi koy moom Alpha doomu ndey reenu bii gi la arbitre ba ngi wax ak ñaari mbër ya war nañ ñëw international day juri dimanche 27 octobre atum 2024 19 heures 34 minutes Reenu Gouy Gui face à Boy Lo ñoom ñaar ku nekk ci côté càmmoñ demoon nañu côté càmmoñ ñoo nga sa booru saako yi ñoom ñaar di leewatoo Reenu Gouy Gui wàcc na Boy Lo wàcc na ani Jackson fu mu féete ani waa Thiaroye ndeysaan Brise de Mer maa ngi koy seen si ginnaaw Brise de Mer 2 Jackson maa ngi koy seen moog am si yaayam ndeysaan ñoo indi seen frère reenu guy gi waaye lamb pot duñ tànn ku ñëw si dugg ngay yem ñu ñu ànd leen na waaye dem na ba ñoom ñaar rek ñu di si géew bi guy gi dagalal lew too booy loolu teg yokk si gardam léew waaye nag ñu ngi bëree si côté li douze ñoom ñaar côté yi bu sama soog al bi danañ di wàcc si dugub géew bi parce que ñaari xale bu ñuy bëree dañoo war a bëri si ko du mën a ak lu mënti xew daal dañuy xeex combat bi demagul fenn waaye ñam moom dina am protestant dem na de dina ñam de ñam ñamante ñam ñamante ñam ñamante day am mais daal en tout cas ñaari ku ci xoolal bu baax xeex bu sax sàpp dina am avertissement pour reenu guy gi waaw ñaari xale yu ni si lamb la ñu bokk Liss Diagne toogatul fan ma jàpp ndeysaan Boy Lo face à Reenu xale ñoom ñaar ku nekk sa grand combat noonu Boy Lo jiital pied Reenu Gouy Gui jiital pied gauche gauche Reenu Gouy Gui na daa bëgg a xeex moom. léegi bu ñu ñëwee baax na da koy déplacé indiwaat ko lépp gis nga mais Boy Lo il est vigilant day saa ñoom ñaar ba léegi ñoom sa la ana Serigne Mbacke foo féete maa ngi lay nuyu borom toog fashion ana Serigne Fallou Seck borom tam Serigne Touba Xayra Serigne soxna Diarra soxna Bona foo féete maa ngi lay nuyu ana sama waajal la jeune animateur Mame Cheikh borom voix bu neex bi. ñoo ngay bëre de ñoo ngay bëre de du mën a ñàkk combat xale du mën a ñàkk combat la avertissement pour Renou Gouy Gui aco sifle wan na saa kuy kenn benn guy de avertissement Boy Lo benn avertissement mbokk Boy Lo moo ñu war noonu dem noonu ngembul balaa la benn guy gi ñu war kanam noonu kàlla ñu ngemboo ngembul ñu ngi nga féetee borom Italie maa nuyu ani sama waaja BBC waaye cee la grand marabu moment mu ci tool yi xew-xew mi jàmbaaru sëñ Saliou bi sëñ kay baax ndeysaan maa ngi nuyu jàmbaaru sëñ Saliou boobu. borom xam-xam bi maa ngi lay ziar yow sëñ Abdoulaye Diouf di la kontaane eh eh attention attention attention benn guy gi daa yor arrêt arrêt door bu doy waar farma dia dara amul dara amul dara amul amagul. dara amagul jël la amul ah am na trois avertissement. waaw avertissement pour loolu guy gi. cinq avertissement day jeex. kon avantage mooy loolu moo avantage. dugg si biir dibu géew yi. réeru guy xeex bi la bëgg a privilégié te Boylo. day xeex bi jàpp la bëgg. jàpp la bëgg. looloo tax chaque bu demee fee ci saako yi. reenu kii Boylo day am avantage parce que su avantage Boylo la. wax nga trois trois euh, mu des deux. léegi su nekkoon Boylo léegi moom mën naa jël temps ndax instant bi moom it ba ko moom moo kee moo ko devancé reenu guy mais reenu guy li kii yomb mu bàyyi saako yi te ñëw digg ci bu bëggee bëreeg moom day ñëw si dugub loolu loolu nag daan na ko looloo daan na ko. doomu doomu ndey Jackson ba daan na doomu ndey Elton ba daan na Reenu Gouy Gui daan na li mu bëree baaxul li mu bëree moo baaxul Reenu Gouy Gui li mu bëree moo baaxul. lamb am na fa xam mu tolloo sax. parce dafa war a ñëw ci digg géew bi bëri ak moom mu si digg bu fekkee yaa ngi bëree moom saako yi chaque jour kee mooy papa nga baaxul. kee avantage bu la jàppee ba nga déception ndeysaan Jackson am na déception Elton ngi noonu si kaw tur bi tamit taxaw mais nag li mooy lamb Elton a ngi noonu ndeysaan Elton ngi noonu mi ngi noonu ci